auzu billahi min asaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñuy bàyyi xel di ñu topp ci jaalibatal maraaxibi fii ajalin ka ajalin raaxibi mu mel ni démb ñu ngi daane woon ci wa alihi wa sahbihi wasqal nii bi ma tuhibu wa saxee daj xal nii fu sëriñ bi doon jullee ci jëm yonente bi alayhi salaatu salaam moom mi nga xam ne mooy raay ak mboolem ñi gëm yàlla maanaam mooy samp yóbbu mooy seen njiit nga xam ne lu ne rek buñ cee nat nit ñi moom njomboxtoon la moo moo ci féete ko mu jëm yonente bi alayhi salaatu salaam ñaanoon ñaan gu am solo gu matoon a bàyyi xel démb ñu waxoon ko muy wasqal nii bi ma toxibu wa saxee daj xal nii muy nanga def sama yitte yëpp yëpp yëpp mu jëm ci rek li nga bëgg yow yàlla nga xam ne na ma leen ko waxoon démb mooy li yàlla bëgg moom ku ci nekk ku ne danga am yaakaar ëllëg ak tex li yàlla bëgg kon taalibe bi murit bi yow mi may déglu jàppal ne fii rek mooy sa tànk mooy sa yoon boo fi jaaree a nga bañ fay jaar comme Sëriñ Tuubaa ñaan na yàlla na ko sama yitte sama soxla sama bëgg téef ci àdduna lépp bu mu doon dara loolu loo bëgg te dem na ba wax ne lim bëgg la yàlla bëgg lim bañ la yàlla bañ kon kookee ku bëgg a topp sëriñ bi wala nga bëgg topp yàlla xoolal fu sëñ bi toppoon rek ndax moom mostu def lu na naqar yàlla mostu def sax lu koy yàlla di mere benn bis mu koy tub di jégul dundam lépp lépp lépp topp borom bi tabaaraka taala la ndax inama taatu bil maxrufi ndax topp moom lu ñu xam rek lañ koy def waaye du lu la neex rek topp sëriñ bi nga topp te lu la neex nga def te sëriñ bi itteem yëpp da ko joxoon borom bi tabaaraka taala kon loolu ku dib taalibe war nga ko bàyyi xal mu ne wasxal nii yow yàlla nanga ma soxla woo sama soxla yëpp bi maa tuuti bi maanaam ci loo xam ne moom nga bëgg waaye wàccal nii nag ma def nag as saxee di may aji texe as saxee da may aji texe kon lii ku ci nekk rek mooy li yàlla bëgg doonte mënoo def lépp waaye nag fa taxulaa ma ta tontum sunu borom nee na ragal leen yàlla kenn seenu kàttan kon loolu mooy topp digle yi rek te bàyyi tere yi loolu mooy dëgg-dëgg nekk ci li yàlla bëgg loolu moom ku ci nekk rek da nga am risinta ak texe kon tey ñu war a dalee ci yaa man arkanu saa yaqiini ala nabi xàlla mil yaqiini mu ne yaa man yow yàlla yow yaay ki nga xam ne lahu ci yow kott kott kott kott kott arkanu ci lay jéng jëm maanaam sama mbir yëpp du ma jéng jëm ci keneen yow kot du ma ci teg keneen du ma wakiil tey sama lépp yow suba ma jox keneen déedéet loolu mos dal sëriñ bi ndax xaaloolu yarkan li abwaabu salaatini tawut jawaay sa tuxni kullu maahini lam leen wax fa qultu hasbiya rabbi yi tafaytu bii te sëñ Tuubaa dafa wax lu garaaw doyloo naa doyloo naa yàlla sëkk sëkk yàlla rek doy na ma te doyloo naa ko xam nga nit dana wax na yàlla doy na ma te doyloo ko waaye sëñ Tuubaa dafa wax lu yéeme dana fa qultu leen doy na ma yàlla te loolu da caa doon yonent bi salaay salaam ndax yonent bi salaay salaam wax naa leen ne fu ko noonu sonnalaan rek suñu borom dana de suñu borom da koy wax na ko xul xasbiyallaahu waxal léegi waxal na yàlla rek doy na ma loolu itam da caa roy jëmmi yonent bi alayhi salaatu moom jëmmi sëñ moo tax fa qultu xasbiya rabbi borom rek day na ma te doyloo naa ko moom it waaye wala turaade xëy na moo diini du ma gërëm lu dul xam-xam ak sariya diina rek ma ñor xam-xam ak diina nga xam ne fa tabaaraka laahu mu ne yaa man yow yàlla yow yaay ki nga xam ne loxoo ci yow kott kott lii la ñuy xasaru ci bayaan loxoo ci yow kott arkunu laay jéng jëm waaye nag saa yëqi ne may borom a kóllite maanaam nga xam ne ku jéng jëm ci yàlla moom mooy koo xam ne jàpp nga fu wóor jàpp nga fu dëgër fu kenn du damgoble kenn du ko nattable kenn du ko nattable tasum bi dafa dem ba yegg ci maqaamaatul yaqin waaye romb maqaamaatul yaqin dem jégg ko xaynul yaqin nga xam ne sëriñ bi martaba yi yëpp da caa jaar dem ba suñu borom di ko wan ay secret ak i kumpam ngir la ko waraloon mooy yitteem lépp da koo jengaloon jëm ci borom bi tabaaraka wa taala moo tax mu ne yow yaay xam ne yow kott kott ci laay jéng jëm waaye nag di boromu kullite maanaam ku xam fi mu jàpp waaye ku xam fi mu jéng jëm te mooy boromam rek moo tax mu saa yëqi mbir moom mooy boromu kullite nga xam ne xam naa fi ma jëm léegi ci yàlla te moom rek laay jéng jëm mu ne na salaatu kooku xàlla nabi yàlla na ko sotti ci kaw kii nga xam ne mooy ku ñu solo ki xàlla mi li yëqiini mooy raayu yëqiin maanaam raaya ak moo doon ñu am yëqin yëpp yonent bi alayhi salaatu salaam mooy seen jiit mooy seen chef nga xam ne yëqin buñ koy natt dëgg-dëgg kooku dañ koy natt ci jëm yonent bi alayhi salaatu salaam ndax mos ku def di gam-gamle gam yëqin mooy nit ki lu muy def di sikk sakk wala la Sëñ Tuubaa doon euh, ñaan yàlla ci taxmis ba am naa barab buñ koy wax waqaatiri wa hudóoril wax ma bi toam yi war a def dara ndax naan nii laa koy def léeg-léeg xol bi tuumaal jëmm ji léeg-léeg jëmm ji tuumaal xol bi nii laa koy defee du ma ko defee nii maanaam lépp looy def ta lu la wóor ne nii laa ko war a defee defee naa ko nii nga xam ne ni ko sariya bëggee rek nga koy defee te mu lay wóor na yow ci sariya rek nga jàpp kooku mooy yëqin waaye bu fekkee ne da ngay gam-gam le lii la naa la naa la rek mooy amagoo dëgg-dëgg yëqin yëqin lu am solo ci nit la yàlla jaaral na faak yonent yàlla ibrahima ba xëy yéegal ko ci maqaamaatul yaqin moo tax mu ne wa kasaalika nuri ibrahima malakuuti samawati wal ardi wala yakuna min al muqinin suñu borom dafa jaar moom ci ay barab yu bëri laataa muy am pas-pas ba yegg ci maqaamaatul yaqin suñu borom nag xëy rek yéegal ko ci maqaamaatul xaynul yaqin mooy wa isqaalu ibrahima rabbi arini kayfa tuhyil mawta qaala aw lam tu'min qaala balaa nga xam ne xis bi daa gudd moo tax kon yaqin li ma li ma ci bëggoon a leeral rek mooy yu yonent bi moom ku ñuy wax yaqin rek ku yonent baal gën a am yaqin moo ne àla nabi yàlla nekk ci kii nga xam ne mooy ku ñu solo ki àlla mooy raayu yàlla raay ak gëm yàlla raay ak kullite xàll mil yaqini mooy raayoo kóllite raayaat kóllite kooku mooy jëmm jëmm yonent bi nga xam ne moom it maqaamu moom la ko yàlla may maqaamaatul yaqin nga xam ne suñ tuwaa mostu def lenn di ko si ko sàkk ndax yaqin yaqin yi sàkka fii sirri wal xalan wala xaadara bi bi ne bi bisri fegal lépp luy sikk sàkk moo xam lu nëbbu la ak ci lu feeñ kon mu loolu moo tax mu ne yàlla na nga dolli xéwal nga xam mooy ku ñu solo ki waaye mooy raay ak yëqin raay ak yëqin kooku sali yàlla nga doolu xel ba tey yow yàlla wasallim te ko doolu góolu bi jameel ali ànd ko mboolem waa kër yonent bi wa sax bii ak saxaabaam yëpp fii la xaali fii ci àdduna wala ma ali ak delluwaay bi te muy ëllëg yowmal xiyaam mu ni salli ma at taslimi sal mayraati xala nabi dala ilil xayraati mu ne yow suñu borom salli yàlla nga doolu xel ma at taslimi gu ànd ko doolu góolu te sëlmal zal mayraati yow mi nga xam ne yaay borom a xont xont mooy xéewal xam nga léegi léeg da dégg ñu ne jur gi jënd nañ ko yeew ko di ko defal ripaas di ko defal lu ne fa tabaarakallah loolu moo tekki ak xont yàlla nag kenn ku ne ba ci male yeeg njaay xàll yu wéet ci àll bi yëpp ñeenti yent yent yi nga xam ne da leen bind ñi amee ñeenti tànk te joxul leen xel yëpp yàlla moo moo leen di xont mooy ku leen di xéwalee léegi-léegi tam da koy def ay jaamam di leen berndal ay xont di leen berndal ay xéwal yoo xam ne ñoom rek ñoo koy am moo tax ma ne sëlli yàlla nga dogal ma taslimi gu ànd ko dolli gu wóolu te muy salaatu salaam sal mayraati yow mi nga xam ne yaay borom a xont muy xéewale rek xalal nag bi xéewal gi yàlla na ko sot ci kaw ki nga xam ne mooy ku ñu solo ki dalaa ilal xayraati mooy tegtaluwaay yiw yi nga xam ne yiw moom foo koy lambee ak foo ko mën a jëlee rek nal coow rek ci yoonu yonent bi alayhi salaatu salaam gis nga boo toppee sunu rek yiw yi ñooy dawal ci seen bopp ñëw yiw yi ci boppam maanaam nee na ñooy dawal ci seen bopp ñëw yow toppal sunna rek toppal yonent bi rek yiw woo bëgg tegtal ba jaaral ci sunna ni ko sëriñ bi diglee jaaral ci sunna ni ko sëriñ bi diglee la ko yonent bi diglee ni ko yonent bi diglee la ko yàlla diglee te yàlla fu fu ngeen jàngee ci alxuraan da ngay dégg ne topp leen yonent bi topp leen yàlla topp leen yonent bi te ku topp yàlla topp yonent bi na ni sëriñ Tuubaa nga ndax sëriñ Tuubaa tànk yooyu rek la doon xenc moo tax mu ne àlla nabi xéewal googu yàlla na ko sotti kii nga xam ne mooy ku ñu solo ki dalaa ilil xayraati mooy tëttaluwaay yiw yi maanaam yiw fañ koy séentoo ak ku ko bëgg jaaral rek ci sunna moom ko boo ci jaaral rek moom dañ nga yiw yëpp yiw yëpp dajee na ci yow moo tax yiw yëpp ñu ngi ci topp ñi ngi ci topp sunna waxoon na ko ci ma mafaatul bitiri wa qaada xayruhu ilal hebaada wammatal yiw yëpp yëpp jëmee leen ci jaamu yàlla waaye wali hab bi jaahi ifaada maa ngi leen ñaan ci daraja yonent bi nga may ma njëriñ yi nekk yëpp ci jaamu yàlla te loolu boroom defal na ko xam nga sëñ Tuubaa moom ni mu ne salaatu gu ali na ñëw ba ci waa këram wason bi ak saxaabaam yëpp mu tagg saxaaba yi na sawil xamal saxaaba ya nga xam ne boroom ak jëfee lañ muy li leen yàlla digal yëpp wàññiwuñ ci dara yokku ci dara leen yonente bi sant yëpp wàññiwuñ ci dara yokkuñ ci dara saxaaba yi seen jamono dañu kompaloo woon waaye juboo ci xol juboo ci xel juboo ci jëmm juboo ci doxalin waaye nag bokk bokk lépp fa tabaarakallaahu waaye nag bëgg yonent bi ànd bëgg yonent bi bëgg suñu borom tabaaraka taala di jaamu yàlla rek moo tax mi ne sawi la amal saxaaba yi nga xam ne bu ko waxee rek tàgg la borom ak jëfee lañ mooy leen yàlla digal yëpp dañ ko dañ ko jëfee waaye wàccal yàlla nga def bii ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wasallam bii ci daraja yonent bi saa nas ma gii xasiida muy jaalibatu marax na nga ko def ci daraja yonent bi jëf gën a rëy jaalibatu amul ndax moom mi ko bind ba mu koy bind dubluwu ci doon dara lu dul jaamu am ngir bëgg boromam nangul ko ko kon kenn ku nekk booy taalif ay xasaayit loolu jëf lay tudd ndax lu lu ko waral nga koy taalif dangaa bëgg yàlla nangul la ko te bu ko yàlla nangoo waxuma la yow mi ko taalif waaye ba ñi nga xam ne sax dañuy tikk xasida gi wala ñi di ko jàng yool boobu da leen ca toppale waaye yow yi itam yow mi ko taalif boo nekkee ci sa biir bàmmeel ku jàng xasida gi yool bi mu ngi lay fekk ci sa biir bàmmeel kon inaa nax nuyul mawta wa nakatubu waaye nag maa xaddamoo wa asaaru wa kullu sayin asna fi maam mi biirim yàlla nee na ku fi mën a bàyyi jeexati dara loo xam ne am na solo nit ñi di ci jëriñu di ci am ay tiyaaba na la wóor na tiyaaba ji ci nit ñi da am am nga ko ko ëpp moom ndax moo tax bàyyi xel moo tax na nga def ci dara yonent bi xasida gi muy ngën ci jëf kon kon jaalibatu maanaam jëf gën a koo kawe jëf ju gën a kawe jaalibatu amul loolu waxi sëñ bi la mu ne sëlli yàlla nga dul ko ala musahihin kii kii nga xam ne mooy ku ñu wéral kii lii la xasanaat ñeel yu baax yépp maanaam xam nga ahlu tasawuf dañuy wax ne nit ku la gën a wér mooy ku sax ci yu baax yi ndax innal xasanaati yusibna sayiaati yàlla nee na yu baax yi bu ngeen nekkee rek ndax lu bon moom kenn mënu koo daw ndax dafa bëri yàlla nee na yu baax yi nag bu ngeen ci nekkee yu ñaaw yi sax dama koy far innal xasanaati yusibna sayiaati kon nit ki bii def lu baax na ko wóor na ko ne bu loon def ay ñaaw taf te yëgul ko yàlla nga koy far du ko bindal de déedéet yàlla da koy fay ndax waman yaqtarif xasanatan nasib loo fiyaa husnan su borom nee na ku fagg aw yiw mu doon aw rafet rafet bu doon fukk la danaa ko ful danaa ko ful ay millions xasanatan ay rafet rafet laa koy ful nga demaat aljana ñi fulaat ko ay rafet rafet kon moo tax kii wér dëgg mooy ku nekk ci yu baax yi kooku yonent bi nag dafa bokk turé muy mooy musahin mooy koo xam ne danaan yiwanal rek maanaam yu baax rek ci laa nekk salli yàlla nga dóor ko ala musahihin ci kii ci kaw kii nga xam ne mooy ku ñu wéral kii lii la xasanaat yu baax nga xam ne yu baax rek ci nekk waaye nag mahasalaamin xéewal gu ànd ko mucc goo xam ne jaali bin aji bijj la lil xasanaat ñeel yiw yi nga xam ne xéewal bu ànd ko mucc goo xam ne day bijj waale yiw yi nga xam ne day bijj waale mboolem rafet rafet waaye yi ndax man jaa bil xasanaati fa loo xasuru am indi benn bu baax bu rafet rek ñun yàlla dañ la ko fulal fukk waaye wa man jaa bi sayaat fa laa yusa ila misla ku indi ñaawteef itam benn rek ñaawteef lañ la koy bindal te ñaawteef foofu la wuteeg lu baax nit ki tey bu xalaatee lu baax te defagul ko kenn du ko bindal waaye bu bu xalaatee lu bon te def ko kenn du ko bindal bàkkaar waaye bu ko defee ñu bindal ko ko te buñ ko koy bindal benn rek lañ ko koy bindal xoolal fu ne lu baax boo ko xalaatee amoon yéene bi te defoo ko sax dañ lay bindal tiyaaba benn waaye nag boo ko defee far sax tey boo ko boo ko boo ko yéene bu noppi def ko ñu bindal la ko fukk gën di yokk ba mu gën di yokk ñu la koy fulal rek ba mu doon ay milliards kon nga xam ne lu baax ak lu bon foofu lañ wutee fa tabaarakallaahu kon nag mu ne jaalibin goo xam ne aji bijj la lil hasanaat ñeel yiw yi fa tabaarakallaahu wa alihi wa saxbihi xayril umam wala tuwajjih li jihaatiyal umam mu ne salaatu gu ali na ba ci waa kër yonent bi yëpp yëpp yëpp wa saxbihi ak ay saxaabaam yépp gis nga tagg na leen nga xam ne lii rek ndam la lu rëy rëy loo xam ne amee nañ ko ci kaw mboolem xeet waaye rawee nañ ko ci kaw mboolem xeet muy xayril umam ca yàlla ñi nga xam ne ñooy ngën ci xeet yàlla leen tànn tagg leen waaye loolu nag bul jàpp ne loolu ca asal la xewee woon ca xaalamul arwaa la yonent bi tànnoon xeetam te bi yonent bi tànnee ba noppi la yonent bi tànn la ca gën a baax la Sëñ Tuubaa tànn ndax jàngoon ngeen ci gannaaw mu ne sëlli ala man qaadali ahlina alqaaidil qurri muhajjalina kon Sëñ Tuubaa dafa tànn tànneefu tànneefam mooy ay taaliba moo tax bokkuñu bokkuñu kenn comportement bu dee ci wàllu joxe ni ko alquran diglee lañ koy defee te dañ koy def fàtte ko dañ ci roy saxaaba yi comme li Sëñ Tuubaa daan wax ne saxaaba yi ñooy seen baay saxaaba yi ñooy seen baay Sëñ Tuubaa daan ko wax loolu nag murit ñi dañ ci doon yónnente te booy xool jëmmi alxuraan fu muy nettali jiyaat leen ci yoonu yàlla daanaka alal lay njëkk indi bakkan lu muy forfor alal lay njëkk indi ndax xam ne ne doomu aadama dafa bëgg alal alal dafa sax ci xol ndax alal dañ koo boole nal ko moo xool ndox ci xol ba noppi ñu nal ko bind ci xol moo tax xol gis nga mooy bëgg alal cër sax du bëgg alal waaye xol ci bopp mooy bëgg alal xol mën naa alal waaye du ko joxe du ko lekk maanaam moom na ko tikki rek donte sax mën na caa dee dee sax mën na ko fekk loolu moo tax kon xol ak alal maanaam dañuy bokk ndox mu ñu leen bind moo tax xol mooy bëgg alal xol mooy bëgg alal moo tax yàlla fi mu tuddee ci alquran ne rek yaa ayyuha allazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alimin tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujaahiduna fi sabilillahi bi amwalikum fu mu lay waxee ne jaar leen ci yoonu yàlla rek danaan bi am waalikum doog a indi wa anfusikum innamal mu'minuuna allaziina indi di ko jox ci yoonu yàlla moo ko gën a ma soom bi ak saabaam yi nga xam ne xayri umam ñooy ñi ngën lu ko waral mu ne taamuroon ne da ngeen di digle bil maxruf ci lu baax waxtaan xaw na ngeen di tere anil munkari safaana lu baax muy lu ñu sib loo xam ne dañ ko fëkk wala too jëx te yow yàlla yàlla boo jëmale li jihaat ñeel samay wàll alxummam njàqare njàqare alxummam mooy njàqaram loo xam ne dafa wër nit ki lu mel ni yóbbu gi ko yóbboon ci géej gi loolu xummam lañ koy tuddee nga xam ne ci géej gi la nekk ay noonam ñëpp wër ko waxaw lii nasara wal bu góoru tamóoru loolu njàqare la mu ñëw xummam muy njàqare mu tiis tiis mu ne nag sama wàll bu ci jëmale ay njàqare mukk mukk yow suñu borom tabaaraka taala lii ba ko koy wax nga ca digg géej ga ca maayomba di bind xasaat yi xasaayit gi wala too jeex yàlla boo jëmale li jihaate samay wàll alkumam njàqare yàlla am na ci ay jaamam ñoo xam ne bu leen tegee nattu day indiwaat meneen nattu mu gën a métti ma doublé ma foofu ngir la natt na rek ndax ba xam danañ muñ wala ba xam danañ saalit waaye sëñ Tuubaa mostu caalit mostu caalit nee na lam yen hu ni seytaanu hii na xaraja mii ni sëj ni hii la ci asaalal xarajaa saytaane dootuma lu mukk ñu ne ko kañ mu ne ba ma génnee bàyyi ko ca koso ga ndeka koso ga kon géej lu ndeka géej ga kon koso la ko jàppe dañ ko tëjoon koso rek nee ne koso gi nag moo dëñal ci man tiis man amatuma tiis man sëñ Tuubaa mu ne sali yàlla nga dool xul ala nuurin ci kaw leer gi nga xam ne leeral na jamiha nayiraat mboolem leer yi leeram gi ci la yàlla sàkkee loo mën a gis min nóorin kulla nóorin saatum bi sanaa la suñ tubaa wax ba ci nóoru nujjóom yi sax leeru leeru yi ba ci wa nóoru sant sax leeru jant bi wal xamari ba ci weer wi sax seen leer gi yëpp ñu ngi ko bindee ñi ngi ko sàkkee fa tabaarakallaahu ci leer bi yonante yàlla Muhammad mooy ki leeral mborom leer goo gis rek kooku ci darja yonante bi salaay salaam ba ci tey waxtu yi ngay gis maanaam tey heure montoor yi ñuy daw loolu ci darja yonante bi la boo tax loolu yonante bi duñ daw moo tax boo demee ci tey surenfir xalal la ci tuufu yaa bien xóotu yàlla nekk ci daraja yuntu sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne ci darajaam ci lay waxtu yi di dundoo te sëñ Tuubaa nee na waxtu yooyee dañuy béggee sama jëf ak sama wax demal ci geneen xasida mu ne wa surtout furhatal wuqut bi hammali wa kallimi nee na waxtu yi bu ma waxee dañuy bég bu ma jëfee dañuy bég kooku mooy sëñ Tuubaa mu tax yàlla nga dool xol xalaa nuurin ci kaw leer gi nga xam ne leeral na jami xam na yiraat mboolem leer yi waaye nag wa allamil huda mooy raay ak njub mooy raay ak njub maanaam njub ci moom lañ koy nattee moo tax yàlla joxoñ ko ne bu ngeen ko toppee rek jub moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy raayaat njub waaye muqiili mooy aji falan alxasaraat fakkatal maanaam nit ki tey bu toppee njub directement jëm ci yonent bi jaar ci sunna te du jadd fenn waaye nag am yëqin ci la muy def xam ne fu mu jàpp wóor la yonent bi alayhi salaatu salaam mboolem liy fakkatal nit ki moo koy diir nga xam ne mu lam ci nag mooy musiilul salaat maanaam muqiili mooy ëy musiilu waaye xasaraat mooy ëy salaat maanaam mooy ki lay dëñal mooy ki lay falangal mooy ki daqal dàqal fakkatal wi kon mooy raayub njub njub moo ci jiitu te moom la ñuy nattee njub ndax suñ tubaa sax bu koy tagg baatam njub la koy indi salli ala baabil hudaa kon kooku mooy jëme njub moo tax mu ne muqiili mooy aji salang alxasaraat maanaam fakkatal tali maanaam boo toppee ci njubam gi rek mooy ki lay falangal fakkatal yi wasalima na nga dolli wóolu xali ci moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam fi laali waa këram ñëpp mahat siha bi ànd ko mboolem yi waaye wàcc ma xaa yow yàlla it na nga dajaleel nanga ma dajaleel lii ñeel ma man sëñ tubaa lan la lay yàlla di dajaleel sëñ tubaa mu ne munal xayri xéewal yu baax yëpp yëpp yëpp dajaleel ma ko maanaam tey doo nekk naan munal xayri mbébét yu baax yi déedéet almunaa sëñ tubaa moom bu ko indee rek lam ci jublu mooy xéewal xéewal gu mën a baax rek te dagan rek mooy munal xayri muy tamit munal xayri loo mën a jëlati nga xam ne mu baax la lu nit mën a jëfandikoo te nit bëgg ko te yàlla daganal ko ci sariya di ñi da ko lekk sëñ tubaa nee na ko yàlla dajaleel ma yëpp ba mu nekk benn bul nga jox ma ko yàlla jox na ko ko waj ma dajaleel ma lii ñeel ma man sëriñ tubaa mu nal xayri xéewal yu baax yëpp bu ci bu ci génnee benn nag nii rek la ko waxee nag bu ci génnee benn mu ne ba tey yow yàlla sël yàlla nga dolli ko la bi taslimin gu ànd ko dolli góolu xale sa fuufi ci kaw kii nga xam ne mooy jëlale waa kon bi mooy kii du mooyu jëlale waa kon boo ko déggee mooy koo xam ne da koo tooñ mu mën a fayu waaye nag jéggal la te du ko toppee moom nga dégg alquran am na ci ñaari barab yu mu koy wax benn bi ci sóorutu xóot ca boori jeexantal ba benn bi ci sóorutu hijri fasfahi xaanhum wasfahi inna allaha yubil musnina na ngay dumóoy di jëlale ndax yàlla bëgg na kuy rafetal ndax loolu dafa bokk ci ak rafetal nit ki tooñ la nga mën koo jéggal ba noppi baal ko loolu yonente bi sallallahu alayhi ci la dëkkoon kon nag fasfahi anhum wasfahi inna allaha yubil muhsinin wasfahi inna rabbaka huwal xalaaqul aliim wax na ko ci alquran kon mu ne sëlli yàlla nga doon xool bi taslim ko ànd ko sëlmal àla saxoohi ci kaw ki nga xam ne mooy jëlle la lu ko waaye mën a def rek dala koy jëlle mooy jëlle la waa kon bi xan jumlati salaati wëlis mbooleem rëcc-rëcc yi si nu yi ñeel koo xam ne borom foñ la foñ foñ mooy koo xam ne kenn mënu koo waar waaye dañuy taxaw ci baat boobu baatam nu yi dafa am ñu koy kiiyee bu fekkee nu foo yi nga wax arab gis nga arab boo soppee benn masque rek moo yàq nga baat bi bu fekkee nafu yi ngay wax mooy jë ci jublu yonent bi mooy borom xéewal yi bu fekkee nufoo yi si nufoo yi nga wax mooy noon buy foñ ak ku man a doon moom yonent bi alayhi salaatu salaam yàlla may na ko mu mën a muñ mën a jëlee la goo xam ne loo ko mën a def ci xeeti rëcc rëcc rek moom baaxal na la ak nufoo yi moom nga dégg alquran ne wasaaduhum nufooran noon yi loo leen war du duñu gëm ko da leen di dolli ak foñ mooy seen bët yi yàlla da koo muur yàlla da koo katt dootuñ di seen xol yëpp yàlla da koo katt dootuñ diggati lenn lu leen mën a waan mu dugg seen bit xol yi loolu mooy an nufoo mooy koo xam ne dafa fañ waaye boo waxee an nafoo yi nga xam ne da koo fataaxa dam waxoo ko waaye da nga koo fataaxa da nga koo fataaxa mooy sii nafoo yi mooy borom xéwal yi mu yónente waaye boo ne sii nufoo yi muy noon yi nga xam ne borom ak foñ lañ luñ mos sa def yónente bi rek moom mooy ki leen koy jël du leen ko toppee mukk te yàgg nañu def yónente bi sallallahu alayhi wasallam lu ne ci makka waaye yonent bi jéggal leen ñoom ñëpp fa tabaaraka gis nga bi mu leen jékkoo itam rëcc rëcc yi ñu defoon yëpp ñoom ñëpp da leen ko jéggal keroog ba mu ba mu ubbee fatu mag ñoom ma ne sël yàlla mu doon xool bi tax bi nga ànd ko sëlbal xale mooy jilli la waa kon bi xan jumlati salaat walis mboolem rëcc rëcc yi si nu fa ñeel koo xam ne borom ak foñ la koo xam ne kenn mënu ko waar te mëntu dégg dëkk lu mu mën a def yonent bi alayhi salaatu salaam yonent bi salaam mën na ko du mooy ndax moom yàlla danaan ko waxul salaamun gis nga ci jeexantalu suratu suxru fi yàlla dana waxul salaamun wax leen na leen dem leen ma dem rek fa sa fa la mën léegi tax yàlla dem na ba xam ne yonent bii am na cofeel ci yéefar yi pour gëm waaye mujj gi yéefar def nañ ko lu ne yàlla na loolu bàyyi leen rek waxul leen sax daggal bokk gi diidit dana bàyyi leen dem leen ma dem rek fa saw fa la mën xawees ngeen di xam loolu aw uppi la bu yowmal xiyam buñ dajeeg yàlla da xam ndax qul maa kuntu bi daan xaw ma boo liggéey luñ may def wala bi eh, di def kon nag fa tabarak mu ne wa ali salaatu wa ñëw ba ci waa kër wa sox bi ak saabaam yi yow yàlla wan na wér maa ngi lay ñaan nga leeral saxiifati sama téereeg jëf wal tataqabal yàlla nag ma nangul suwar yi jaamu yàlla gi may jaamu yàlla di ko jaaree ci saari alxuraan yi noonu nga koy fiyee jaamu gi may jaamu yàlla waaye di ko jaaree ci saari alxuraan nga ma ko nangul kon nag sama téereeg jëf na ko leeral mooy lu ci bokk ci boppam bu mu ci nekk nga xam ne lu baax rek cee nekk kenn du ñëw sax naan da koy fees ndax am na yowmal xam am na ci ñoo xam ne suñu borom du leen xool sax maanaam ñoom dañuy gën rek gis seen bopp aljana dañuy dugg aljana rek ñu ne waaw ñun ana luñ leen waxoon naan si siraat nangam nangam fekk ñoom fa tabaarakalaa seen jëf ju baax ji la yàlla ñu ci yàlla boole loolu suñ tuwaa bokk na ca moo tax ma ne wa nawiri nga leeral saxiifati sama téerig jëf muy kenn ku nekk am nga téerig jëf ndax iqro kitaabiya inni sanantu ani mulaaxin kooku mooy borom not bu baax bi wala te taxabal kon yàlla nga nangu suwari jaamu yàlla yi nga xam ne moom lay def di ko jaaree ci saar yàlla na nu yàlla sunu mboolem jaamu yàlla ba bis ba nga xam ne laa yuqaadiru saqiratan wala kibiratan ila ansa lépp yàlla takk na ko du dara dara yow tub la sarairu yàlla nañ ci ba nga xam ne bu ñu xoolee seen téere fa tabaaraka laa fekk ci mboolem lépp loo xam ne yàlla